asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 3 avril mille ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy yëglikaay bi xëy woon ñu Eumeu seen boo xam ne mu nga solu taxaw wala yëkkati ay loxoom mel ni kuy ñaan boroomam wala mu koy sant sunu làmb nag nee na jàpp leen une décennie à nord noonu la ko yëglikaay bi tudde pour Eumeu Sène maanaam daal Eumeu Sène boo bëggee dëgg-dëgg fukki yi mu génne moom ci wàllum làmb neex la na ci lool lool lool sunu làmb xëy tey dinu ko wax cinq victoires yoo xam ne day am na ko ci sans nag roi des arènes ba nga xam ne nii Eumeu Sène foqati na ko ca bombar ji jël ko moo tax sunu làmb jàpp ne day dix ans Eumeu Sène yi moom neex na lool lool lool ba yegg sax ci loola sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne sunu làmb dafa xëy ñëw ca mooy kii nga xam ne nii mooy xaritub Eumeu seen di Gris Bordeaux sunu làmb nag daa sampab laaj ndax di laaj ndax Gris nag est ce que léegi nag du teg arme ca suuf nag ginnaaw ay nag jàmm ndax nag la tax yëglikaay bi xalaat ko mooy comme léegi nag day nommé nañ ko mu jiite li nga xam ne mooy kuréelu mbër ya moo tax sunu làmb ñëw di wax loolu maanaam daal tegum ngànnaay yi pour Gris Bordeaux waaye écrit ba mu bokk moom sunu làmb itam am na taxaw seetlu bu mu fa def nee na de li leer ba leer écrit face moom chaque jour rek saa yu ñu xëyee ñuy gën a confirmer seenug leader maanaam seen matuk njiit ci làmb ji li tax yëglikaay bi wax ko nag nee na jàppal association des lutteurs en activité boo xoolee am na juróomi président ci at yi ñu génn boo xoolee ñaar ña nag égri face la ñu jóge sunu làmb ne na loolu nag boo xoolee li ko waral égri la boo xam ne day organisé wu na donte at sax ci wàllum bëre doxlewuñu waaye boo bëggee dëgg-dëgg moom wàllum kàddu organisation organisation ak doxal ay mbir moom nit mënul leen ci moo tax sunu làmb jàpp ne day seenum njiit daal maanaam seenum leadership saa yu ñu xëyee di ko gën a confirmer sunu làmb xëy tey dina ko wax am na mbër moo xam ne ni moom sunu làmb wan nanu ko muy deux siga moom nag nee na pare na ngir defante waat sunu làmb xëy tey wax nu lu mel noonu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii mooy ci sunu làmb mooy la mi nga xam ne day daa mel ni kuy dànkaafu yéen mbër yi di leen xalaatal lu mel ni ki mbirum année balance yëglikaay bi moo ci ñëw waaye dañ fay jóge dem fii nga xam ne nii mooy ca Leewtoo TV fekk fa gàmmu géy ak kolifay mi war a defante suba ca fii nga xam ne mooy Iba Mar Diop ci 4 bi ñoom ñaar nag ku nekk daal yaa nga naan sa morom bu nu sa yeggee day mën naa métti ci yow wala mu wex xàtt ci yow kafa jaar nag mooy jéy jéy production wala boog jéy seen loola mu nga ca Leewtoo TV waaye dañu fay jóge ba tey rek dem ci Leewtoo point net fekk fa kii nga xam ne ni moom moo di Jax Jax nag mu ngay wax ay dëggam yu leer nañ nee na day li am nii ci làmb ji mbirum gënale sax la ko jàppe ndax nag nee na moom mënoo nekk promoteur ëpp looy tëgg ñu bëgg nag bu arène bi ubbee ñu lay jox dat yoo xam ne day néew ndax moom ne li muy tëgg ci wàllum lit simple kenn tëggu ko kon nag nañ leen yemale ñoom yi nga xam ne ñooy tëgg lit avec frappe bëri di leen jox daal journée yi gën a bëri Jax loolu moom naqari na ko waaye da caa yëmut Jax da caa boole sax nee na arène nationale moom li leer ba leer muy taw wala muy naaj du fa tëgg tey suba waxi noppi jaral na ko sax ba ñu tëgg waaye moom daal gedd la ko def la tax mu wax loola nag nee na docteur Alioune Sarr bu demee ba Siin wala moo xam fu mu dem di fa lijjanti lu mu jëm ci mbirum arène nationale waroon na cee boole Sénégal yi ngir buñ koy liggéey liggéey ko ci norme yi nga xam ne moo am ci réew mi ngir bu keroogee ñu mën koo jëriñu waaye nii ñu na moom bokku ci tey suba waxi noppi leneen loo xam ne tamit gis nañu ko wala Jackson nar ko mooy suba fa nga xam ne mooy Adrien Senghor la jëm teg fa un million waaw ci lutte simple Jackson daal loolu def fii nga xam ne mooy ci arène nationale ba wala boog fii nga xam ne moo di Adrien Senghor suba million daal la fa teg lu jëm ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci wàllum bëre bi àndul ak dóor leneen loo xam ne tamit ci bëre boobu la bokk ba tey muy fi nga xam ne moo doon ca dëkk ba la nga xam ne mooy ca côté Fatick ñuy continuer rek ci Leewtoo point net moom gis nañ ko ko moom tamit mu ngay wax ay dëggam Malick ñaa ak Yékini Senior moom daal ñii la teg bët te jaay jàpp ne sax moom ñoom dañ koo ragal gaynde la jàppe boppam ñoom mu jàpp leen ay mus boog wala segg waaye loo ci mën a dégg daal yóbbante galgal moom ubul làmb ndax Forza ak Yékini Senior dañoo ragal Malick Niang loolu man ñiy suivre refi de l'arène bi laa koy laaj waaye nag jàpp leen tey ji le 3 avril suba le 4 avril feetu indépendance lañ koy wax 4 avril muy bés ba nu jotee suñu bopp di avril 1960 tombé woon ak la 4 Taala Njaay indépendance bi yal na gën a yokk ci côté yépp kon nag tey dama naan gardez-vous repos wala mais respect képp ku ne ci armée bi rawatina ministre ba nga xam ne nag moo yor armée bi di Augustin Tine kon Taala gardez-vous la ñuy waxam wala repos salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV comme ñu leen koy andilee chaque jour seen revue de l'arène ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ñëw ak euh, Babacar si jàngat bi ginaa bi revue bi jàllee Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssatou Faye madame Niang ah. tey nag da mel ni ko xaw a fatigué quoi xamul nu mu deme noonu wala ngaa ndékkeegul <laughs> da ngaa xiif Aïssatou yaa ragal xiif naar nga maanaam da naar day ragal xiif de wala mais bëgg naa la. waaw maa ngi delloo bëgg bu baax Babacar xiif moom ñu ko xam naa ni bariwul muy manaak muy keneen ak keneen xiif ñu ko ñemee bëriwul la ñuy daal li jublu si li nga xam ne ni mooy euh, jàngat bi suñu lamb andil ñu décennie en or pour Eumeu Sène maanaam ci 10 ans yi macha allah euh, am na fi li nga xam ne mooy 5 victoire am fi euh, trône couronne roi des arènes bi mu nekk 10 ans yoo xam ne neex na ci leaderu Taïsinga bi. waaw loolu de macha allah la ñuy wax rek di wax ne rek àddina moom loolu li ñu ciy jàngate mooy olof dana ne olof yi dañuy faral di lépp naan ku yàgg ci teen. baak fekk la ci xëy na loolu moo ko uyu si ndax Eumeu Sène bu ñu delloo ginnaaw tuuti si carrière am demoon na benn moment dëgëroon na trop trop trop ba yaakaar naa bu nekkuloon sportif wala wala mu am ñu ko dimbali encadré ko kon xëy na tey du atteindre niveau bi mu yegg si loolu nag li ko ko waral li ko ko may mooy metti woon na mu muñ ko ñafe ñàkkante ba tey bu ñu nee desee maanaam dem ñëwaat dem ñëwaat bu jàppee ni 10 ans yi moom maanaam 10 ans de la ci moom kon daal vraiment duñ mën def lu félicité ko ci loolu mu nga xam ne yore na ko tey muy couronne roi des ak ndam yim ci am ak yëpp muy mbër mi nga xam ne tamit vraiment sportif vrai la quoi Eumeu di ko nuyu di nuyu ay encadrement am yëpp mais di nuyu ay supporter am waa Pikine di ci nuyu ñu mel ni ñoom Lamine bu Eumeu Sène Issa bu Eumeu Sène di ay supporter am ñoom booy Pulo xam nga booy Eumeu ay ñoom Medzo waaw vraiment daal mbër la bi nga xam ne moom c'est waaw voilà waaw roi des arènes moom kenn waxatu ko fu mu toll nii ndax euh, jël na ko fi daaw si kaw ki nga xam ne ni mooy bombardier ñu jógee foofu dem si li nga xam ne ni mooy journée 4 avril bi muy xaar euh, ci ay combat bi dox diggante ki nga xam ne mooy Colifay ak euh, Gamou Gueye 2 Dieye production moo ko taxawal Babacar ñu dem ci derby lébu nag diggante Caaroy la ak Tëngéej. waa derby lébu comme niñ koy faral di gisee mais nag lépp sport la rek. waaw ñoom ñëpp ay xale la ñu nekk ay yaakaaru làmb comme li ma waxoon rek xale moo leen tëgg tamit parce que jéey mi leen tëgg mën nañ na presque waaw seen morom la ah waaw parce que jéey maa ngi koy nuyu abassage di nuyu Abdoulaat Ndiaye euh, Coly Faye nag euh, dafa nekk xale boo xam ne ci bëreem xale bu am fugg la du mayee dara moom foo mën a nekk moom ak mbër boo mën a doon ci sa kaw lay ñëw dal sa kaw bu ma koy xool daf may xaw a saf bàyyi ma joon ci début carrière am yaa ngi dégg ci biir maanaam da ngay gis ci moom nees gis ci moom bàyyi ma njoon muy xale boo xam ne vraiment xale bu am gëm-gëm la si li muy def xale bu macha allah daal ci làmb mbër piir la parce que mbër dañ ciy soxla xorom dañ ciy soxla boo nekkee ci biir làmb ku la xool gis na yow mi saf nga mbër te ko li fay loolu arrivé na ko ki mu ko seexal nag muy gàmmu géey moom loo ko mën a tegal jàppal ne mën na koo résister ndax ku fàttaliku diggante mag Pape Ndoye bu faas kere defe naa xeex bu metti noonu gëj naa koo gis ci làmb xeex bu tara tara tar te taxut mu bàyyi ba na mu ko daan mu nekk xale boo xam ne boo ko gisee nii mu njool noonu xaw a sew nga yaakaar ne amul doole ah man nga xeeb xel mu lakk sa dàgg parce que mbër la moo tax daal jàppal ni suba moom ci feetu indépendance bi jiy indil nañu combat bu neex a neex a neex a encore une fois di wax ne que rek suba 4 avril la di suñu feetu indépendance waaw 4 euh, avril ba tey la ñuy des euh, ak ki nga xam ne mooy Jax production bu jëy dee euh, yëngal fee ci Ibomar Jax ma nga arène Adrien Senghor mise fa 1 million pour tamit fête indépendance bi ci wàllu ci sample yi. waaw loolu mooy moom moom loolu moom luy neex lay doon Jax ñu koy nuyu di ko jaar ndax ndeysaan daaw daaw la ma décoré man ak Lamine ci stade Iba Mar Diop waaw ci 4 avril xam nga kon Jax. man vraiment aw ma fayam daal di ko nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di wax ne moom tamit nekk na promoteur bi nga xam ne a ne teg na ko fi suba nga xam ne mooy adresse Senghor yaakaar naa kon mbëru simple yi suba nañu waaj a neex ndax mbëru simple yëpp fi mu nekk nii fi mu nekk nii ñoom ñëpp pare nañu xam naa ne ah, naa ne nañu xaaraat yàgg si caméra bi ak biram si reportage bi dañ leen indilaat yu neex daal suba nga xam ne mooy adresse Senghor Uh-huh. waaw euh, ñu jugee Babacar le 4 avril dem le 21 avril muy date bi nga xam ne ni ci la lutteurs yi bëgg def seen assemblée générale ginnaaw bi nga xam ne ni kii bàyyi na ki nga xam ne mooy Khadim Gadiaga démissionné na ñu war a def euh, seen assemblée générale fas yéene waxtaan fal seen euh, président bu bees le avril incha allah. waaw boo xoolee par consensus moom fal nañ ko mën nañ mais xëy na kon dañ ko war a confirmer le avril muy seen assemblée générale ah ndax kuréel moom ay nit bu ñu nekkee nekk mbooloo dajaloo am nañ droit tànn nit ne ko yaanu doy kaay jiite ñu tey nag ne nañ Gris leen doy moo leen war a jiite kon dañuy ñaanal yàlla Gris Bordeaux njiit boobu ñu ko mbokki mbërëm yi wóolu ba tabb ko yàlla bu mu nekk lu nga xam ne nii ah euh, ndam du ci am maanaam yàlla nañ ci jëlee ndam parce que tamit képp ku la jël rek coox la nangam ne la jiiteel yaa ma doy sas na la kon sas woowu yàlla na nekk réussite ci Gris Bordeaux waaye nekk réussite tamit ci làmb yëpp daal waaw waaw euh, keneen koo xam ne ni Babacar euh, sas na boppam muy fëgala parce que fëgala suñu lamb am nag moom waxtaan bu yaatu ñëw na ci saison blanche bi nga xam ne nii mi ngi waaj a dal ci ay mbër yu bëri bëri ñëw na ci Ama Baldé Siteu nee na na ko si Siteu jël daan Ama daal daal si leneen mais leneen tamit euh, lu mu sas boppam mooy defet bokkatul si si si jargon moom bokkatul si li nga xam ne mooy vocabulaire maanaam daal di des si carrière am ndam rek la ci gis waaw loolu day am na si droit parce que tamit euh, fi may jëkkee sax mooy mbër yi muy dànkaafu ci côté am na ci mbër yu am ne boo sàgganee moom ren du ñu bëre te loolu nag defe naa baaxul ci un sportif war nga di pratiquer li ngay def chaque jour quoi moo gën a wër toog bi bañ a bëri parce que boo toogee moom yaa ngi retard te loolu amul njëriñ kon fëgal loolu mu leen wax tamit nañ si bàyyi xel kantaa li mu ne nag li daanu moom di les si bëggatuma ko dinaa ko mën a nangu waaye dootuma daanu moom xam naa ne du wax ju wóor parce que li tax li tax mooy adversaire ngay am mu lekk sa avance entraîné di wut ndam ni ngay wute ndam li ngay bëgg lay bëgg li ngay foog lay foog li ngay nar lay nar waaye nag li mu wax ne bëggatul daanu moom dama ciy ànd ak moom ndax kenn bëggul di bëri di ñàkk waaye nag làmb la ñu ne tey nag am na combat di bëri xale boo xam ne nii tamit moom it bëggul daanu kon jàppal ne daal fëgg la loolu mu wax moom amul benn mbër daal buy takk ngem ay satu ci wax ju gaat juy bëri di bëgg a daanu moom waaw amul Ah, waaw kër ñi daal di jeexal ak ki nga xam ne nii moom mooy Forza ginnaaw bi mu daanee Abi Diouf daaw fële ca Diourbel boobu ba léegi muy xaar combat mënagul am komba moom it euh, ñëw na si Leewtoo TV wax ñi nga xam ne ñooy adversaire am ku ci mel ni ñoom Malick Niang ñoom si euh, Junior ñooñ ñëpp mu jàpp ni daal war na mën a laaleeg ñoom. waaw Forza waaw parce que boo xoolee Leewtoo ko tëggoon daaw mu demoon fële ca Diourbel daan fa Abdou Diouf tey nag gis nañ naka ba tey nii amatagul combat nee na ah doxoon nañ ay combat ak ay mbër rawatina Malick Niang wala Garga Mbossé ah, loolu nag tey bu ñu gisee mu xëy di defiwaat Garga ak non Pape Garga ma Yékini Senior ak Malick Niang loolu dañ naan c'est normal parce que tamit. Euh, jàpp na ne ay adversaire am lañ jàpp nañ ne ci côté yëpp war na mën a bëri ak ñoom yaakaar naa moo kii ki ni si ñor neex na mook Malick Niang itam combat bu neex a neex la waaw mu nekk euh, mbër bi nga xam ne daal kon na ko promoteur yi gees utal ko adversaire ndax xam naa ni bëgg na bëri lool moom moom Forza waaw waaw ñi suivre Leewtoo TV ñi loolu lañ leen tàggoo di leen jox euh, rendez-vous suba incha allah ci beneen revue de l'arène mais balaa boobu dañuy bëggee yàgg ak Mame Talla ci caméra bi di bëggee Ousmane ci montage bi équipe bu Leewtoo TV bi yëpp ñoom euh, Ndeye Kumba ñoom Momo Mané ñoom euh, Kitaan équipe bi yëpp daal Mansour tout le monde ñu bëggee képp kuy bëggee Leewtoo TV daal ñu ngi leen nuyu baax di la ziar di la jaajëfal depuis Algérie maa ngi lay nuyu nongo Fall maa ngi lay nuyu Assane Argentine sama sop boobu maa ngi koy nuyu bu baax waaw Assane Sall euh, ñoom Amar Gueye depuis Italie instant bi mi ngi fi vacances sax maa ngi koy nuyu bu baax euh, Chéri Nogay di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. am na solo ah. comme ni ñu ko wax di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di jàmm di wax ne comme que rek waaw suba comme ni ñu ko xamee mooy feetu indépendance 4 avril ñu ñaan yàlla def ko ci jàmm mu jeex ci jàmm di ci nuyu tamit suñu mbokk yi nekk ci armée bi yëpp. ñoom ñëpp ah du ñu bàyyi kenn di leen nuyu di leen ñaanal jàmm xam nga di wax ne ñoom kenn amul seen fay di nuyu ñi xam ne tamit dañuy suivre xam a ne si àddina bi rek parce xam nga di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à travers le monde mais Khady Rose Ndiaye wala Khady Ndiaye Rose maa ngi koy nuyu depuis Allemagne mais tam du ma tuuti yaay Sarr depuis Espagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu sama benn yaay tamit bu nekk Géejawaay bu ñuy wax xam nga soxna wa Kelly maa ngi koy nuyu ay doomam yëpp ah ñoom Ulay Sarr ak xajatu ñoom ñëpp maa leen di nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ni ñu koy waxee rek xol bu sedd yaram bu sedd Ndiaye Mohamed Italie bëgg naa la yàgg moo newoon si caméra bi tey moog Talla Ndiaye yàgg maar montage Seydina Ousmane xam nga borom leer yi ñu ngi koy bëgg bu baax a baax di nuyu waa Leewtoo yëpp du ñu fàtte kenn ñaanal ñëpp jàmm Aysatu yàlla na jàmm am ci réew mi te sax fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nag jóge nañ Kazu Rajab ñu ngi waajal appelu laayan bi foofu tamit kon moo lay wan ne Sénégal daal yal na fi yàlla yokk jàmm ndax mag ñi nag liggéey nañ réew mi ba pare te man dama leen a gëm lool mag yi réew mii ci Sénégal waaw. waaw ci loolu ñu jox leen rendez-vous vendredi incha allah ci benn revue de l'arène